chroniqueur fele ci fajri nek en même temps directeur de publication site bi di atlanticactu.com euh, gannaaw euh, bu ma nuyoo waa panel bi nuyo Reine Mère euh, ñaan ko nak mu wasare waxtan bi ci groupe yëpp. metit metit euh on peut trouver même un mot beaucoup plus fort euh, et puis voilà quoi surprise surtout. boo déggee nit sax koo munti doon ñu ne la dafa am jafe-jafe teg nañ ko loxo mu ngi ci kaso bi du doon lu neex doomu aadama mais nag bu dee ka nga xam euh, wax fa dëgg yàlla tey gën a metti euh, bu dee tamit kii nga xam ne nañu teg daan yóbbu ko ci kaso ñi tegee ko ko ci ay anam yu doy waar métit gi day gën tar c'est-à-dire boobaa da ngay am euh, métit ci sa yoonu dëkk nu muy doxee nga am métit ci sa net ki nga xam mom lañu jël euh lank euh, làqu ko jant bi euh njaqare nga xam baye ci njab baye njabotam ci njaqare ci jaxlé donc euh, pour dire vrai euh emprisonnement wu Pape euh surtout grève de la faim bi mu ci bolé dafa doon la nga xamné euh, vraiment man personnellement euh, daf ma atteindre voilà wa jangat bi euh, moy lima wax ci sama ben wax moy manam nit ki dafa am defin ba nga xamné suñ ko tegee ci sa kaw ngay doon gor fala budda faw nga am no réagiré damay fatéré ni pap alignan c'est un journaliste Pape nek nek chef d'entreprise parce que fi ma nek tay ji di wax mom moko soké moko mom Pape Alé c'est un créateur d'emploi wa nit ki ni men ñi ne la rayul nit jaayul drogue escroquerul détournéwul ludul, dafa wax la nga xamné ñii nga xam ne yoo yore nguur gi jàpp nañ ne li mu wax arrangé wu leen neewuñu lu mu wax du dëgg de mais li mu wax arrangé leen neexu leen ñu jël ko ci fànn yooyu fekk ko ci mbedd fa nga xam ne fa la toog di defar euh, daamaaram otom ñu ñëw kidnappé ko comme maanaam nu ñuy jàppee band yi loolu day atteindre nit ki dans sa chair ñu téye ko ci condition yéni men ay waxtu ay fin, soo que jébbal kii nga xam ne procureur procureur jébbal ko juge juge place ko mandat sous mandat de dépôt euh, donc loolu bu devez ku mel ni Pape c'est tout à fait normal ak quoi mu munti donc, anam yéni men ñu téye la ko ci dëkk c'est ce biir te ci dëkk boobu nga def fa la nga xam ne ay jamono jam ay génération génération daañu fàttali ni que fii nu mu munti demee y a eu un journaliste à une certaine époque bu tuddoon Pape Alé bu fi fësaloon lii bu fi feeñaloon lii yooyu day metti donc euh, tey euh, anam yu mel noonu bu amee euh, yoon la duma ko yonal sax mais je trouve que yoon la euh, ku a ni Pape Alé di ci def grève de la faim parce que tamit grève de la faim c'est un moyen de lutte face à l'oppression et à l'injustice té Pape Allé, fu mu il est victime d'une oppression et d'une injustice waaw waaw que ñun souvent bu ñuy tok di wax di dingat fonctionnement justice dañ ko tek ci ay faits yu réel parce que tamit dañ ko wax te dee mooy dañu am benn justice bi nga xam ne saa yu leen arrangé duñu ñu diir du ñu diir du lire le droit ils ne disent pas et ils ne lisent pas le droit ils interprètent xam nga justice le droit ñoom magistrat yi dañ la koy wax surtout en matière pénale ne la c'est scientifique dañ la koy wax ñoom ñoo koy wax

Pape Alé yàgg na wax yag na fi génne ay affaire yag na génne ay xibar mais c'est que bi ñëkk a ñoy ay ponkal ba paré tek sen bop ay intouchable c'est-à-dire que dans ce rapport là il y a eu des messieurs yi nga xamné au plus haut sommet de nos institutions qui se sont amusés ci ben mbir bu ndaw sur une affaire supposément privée, une histoire de viol présumée entre Ousmane Sonko et Adissar pour monter l'un des complots les plus sordides de l'histoire du Sénégal. Lui, le pape Allé, tchof. Lui, qu'est-ce que le pape Allé, tchof. Et je l'ai dit, jamais. Moi, je lui reconnais ce courage d'avoir osé mettre ça sur la place publique parce que moom il bokk moom du kese moom du moom kese yore woon rapport boobu journaliste ko yor mais au moins il a osé mettre ça sur la place publique loolu mooy wane lan mooy que mooy wane ni que engagement bi mu yore woon ci ay jamono ba muy nekk 2STV ba muy nekk Sen TV ba muy créer Dakar Matin engagement boobu ci la nekk ci la sax bataille ji donc il faut le lui reconnaître mais nag je dis encore une fois nit ki boo koy da ngay de firnde yu que comme nous avons rapport bi Pape ñi lañ ko parce que nous, avons wax rapport message messages police message sapeur pompier non nous ñun ñëpp ko pourquoi singuler justement Pape voilà donc voilà le problème c'est-à-dire que nous sommes ko te avocats il n'a jamais été question du rapport interne de la gendarmerie mais ça waay nañu avons ñoom seen biir nan la rapport bi daf ba loxo dans la mesure où ce rapport là avons nee c'était classifié confidentialisé à certains niveaux donc nous avons ñoom nous def mu et puis là n'est pas le problème le problème moi est-ce que l'inactivité de ci rapport bi la est-ce que des messieurs se sont amusés à comploter sur un opposant Moi, il que dire que l'IPAP a def aux États-Unis ça a valu la déchéance d'un président de la République le Watergate nous nous, nous lui rendons hommage ceux-là nag ñi nga xam ne que il a commis un crime de lèse-majesté parce que ñoom intérêts intérêt ak leur petite personne Mon, mon, mon, mon bouleversé mais nous, vraiment on trouve que ce qu'il a fait c'est d'avoir été courageux et d'avoir été très professionnel bon euh, xam nga que rek damay waxtaan euh, ak Moustapha Diop ñuy wax ci contexte presse bi ñiy fàttaliku ni que 2004 presse bi fi pratiquement ñi fi yoré presse bi c'était des journalistes dans l'âme moy patron de presse moy les directeurs de publication c'est-à-dire que ñi yoré woon la presse c'était des journalistes cest ñooñu presse de len di laal mais malheureusement le contexte est on a une presse bi nga xamné bon euh, le patronat ni ci euh, li c'est pas justement la valeur informative euh, c'est des positionnements c'est des voilà quoi c'est des positionnements et des systèmes d'autodéfense dans l'Ukraine et journaux taxaw donc loolu yëpp tax 2004 effectivement on n'a pas vu la même chose qui euh, soutient à Pape Alé la preuve euh, la lettre ouverte bi nga xam ne lañ joxe woon démb nañ ko foosaare en ñetti quotidien Il y a quelques sites donc ça prouve quelque part que effectivement le soutien n'est pas ce qu'il est ou ce qu'on attendait qu'il soit mais bon toujours est-il que il faudra rendre hommage à des gens et je le dis ici solennellement comme Lisa, Ibrahim Lisa Ibrahima comme Faye ku Yolande Camara comme euh, Mamadou Thior, euh, et tous ceux qui sont regroupés au sein du collectif. nga xam ne bu ñu xëyee ci mbirum Pape Alé nañu nekk bu ñuy de ci Pape Alé nañu je crois à eux seuls ils ont représenté suffisamment la presse Et dans les jours à venir euh, les Sénégalais verront que euh, Pape Alé ay nottangoom ay xameewam bàyyiwuñu ko waaw wa xam nga benn moment dama yaakaar ni que ñun ñoo may waa ñoo may politiciens yi parce que ñii di wax c'est des politiciens euh, ils n'ont pas autant ils n'ont pas plus de valeur que Pape Alé très sincèrement. mais aussi journalistes yi yenn journalistes. maa ngi ñëw foofu waaw politiciens yi d'abord ñi koy wax bu ñu jëloon valeur rek intersect teg ko Pape Alé moo leen gën. ñoom dans leur domaine ñoom ku ci nekk balaa ngaa nekk ministre wala balaa ngaa nekk kilifa ci nguur gi ca domaine ba nga doon yëngu moo xam avocat nga moo xam euh, leneen loo munti doon bu ñu xayma woon li Pape Alé ñaa def ci journalisme ak ah, yow li nga def sa branche danga gis ni que yow tekki woo dara ci sa corporation xaw ma ndax comprendre nga li ma wax ñooñu di ko dinga tey parce que nee nañu ay ministre nañu wala ay kilifa nañu. démb ñom ak sen patron ñoo doon ram di jonkon ci buntu pap ale pour ñu mu inviter leen waaw kooku bo taxé tay nan ko non yow do journaliste kooku ay waxu naxa saba nang la quoi je j'ai même pas la peine d'épiloguer sur ça mais ce qui est le plus grave moy justement dans la corporation ñi taxaw di ko ko dénier man buñ ma génnalee firnde bu wane ni que pap ale n'est pas journaliste et qu'on ne me parle pas de la carte de presse hein. <laughs> non ne m'en parle pas c'est un instrument politique voilà pour justement créer une discrimination ils sont libres mais dans ce Sénégal ne peut dénier à Pape Alé sa qualité de journaliste c'est ce qu'on attend d'un journaliste il fait des émissions. C'est ce qu'on attend des journalistes, d'un journaliste. C'est tout ce qu'on attend d'un journaliste. Si presse écrite il bind Il je dis que c'est un mauvais combat c'est un mauvais combat d'ailleurs et cela doit may aussi le déficit de soutien de la presse autour de Pape Allais. parce que lii ko dal nii mun na dal ku nekk waaw gan la ba nga xam ne kër gu nekk mun na fa dugg pour le moment intérêt nguur gi mooy tëj gémmiñu Pape Alé tëj gémmiñu ñu niroog Pape Alé mais bu subaa am na yeneen gémmiñ yi nga xam ne dañ leen bëgg a tëj waaw waaw mais euh, Pierre xam nga déjà euh, journaliste soo choisir daf ko rek surtout le journalisme d'investigation moi que déjà yow sa benn tànk dugal nga ko parce que dañ nekk ci ay réew yi nga xam ne am ay njët yi nga xam contradiction bëgguñu ci dara on a des despotes on a euh, des des des jacobinistes yi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi yi nga xam ne ñoom ils ne souffrent d'aucune contestation bëgguñu ko contradiction bëgguñu ko ont la pensée unique mais je dis encore quand on fait un choix de vie on l'assume mun nañu tiital xëy mais <laughs> je dis que euh, la volonté des autres de continuer à faire leur travail elle est là présente te le titre bon maintenant si bu dee képp dénoncer. dénoncé wala parce que dañu bëri ay dañoo bëri mbóot mbóot mbóot ba nga xam ne boo tuddee sax mbir rek ñoom xalaat nañu yaa ngi ci ñoom parce que tellement que dañu bëri ay mbóot kon ne daañ jàpp ñu bëri daañ tëj ñu bëri parce que nag bu ñu bëggee bañ a tëj kenn bañ ñu wax ci ñoom mooy que la nga xam ne moom la président Macky Sall diggaale woon ak sénégalais yi en 2000, mille deux mooy une gestion saine une gestion sobre et vertueuse nañ ci ñëw mais lii nii nii fekk ñi ngi fii di détourner du luubal les gens vont en parler mais c'est de bon guerre dama ne la ñoom ñii di wax ni seen njiit ba ko prés ba ko président Macky balaa moo nekk président opposant ba koy Pape Alé di invité 31 décembre jëmeewu ko woon parce que jamono ñu benn télé bu ko woon invité 31 décembre 2011 ba koy Pape Alé di invité gëmeewu ko woon ñii taxaw fii di wax nii tey naan waaw Pape Alé lii Pape Alé la te nekk euh, ci nguuru président Macky jamono yooyu lijjantiwuñu Macky Sall ñi ngi won Benno Bokk Yaakaar wala Benno sigil, Benno sigil Sénégal wala Benno ak Tanor wala ñi ngi won Bir PDS devenir les chiens de guerre du pouvoir les vrais apéristes yi nga xamné fekk na len fi presse Pape Alé wala Walfadir, di les ubbil di ko ubbil di ko ubbil ay buntu ñi ni tey taxawul fameux chiens de garde là ca jamono yoy ils étaient sous d'autres cieux mais a peur, deug deug deug pur sang do len musa deug ñu attaquer Pape Alé ce sont les militants de la 25 e heure wa à la recherche de prébande et de Strapontin, ñom ngay deug ñuy wax mon dernier mot je dis encore une fois je suis désolé de la posture du parquet. gannaaw ka ka cas au Pape Alé bi gis nañ fi ki di Cheikh Omar Diagne ak Karim Gueye euh, Khourm Kharat. ça fait presque deux semaines nous avons déposé cette demande de liberté provisoire Pape Alé la même chose et vu son état critique ganaw bi mu defee grève la faim bañ ko djel mujjee jël évacuer ko on voit que le procureur prend ses aises c'est-à-dire il prend son temps pourtant bu doon ku far ci ñom la sen nguur gi benn wala APR ñu ne moom demander liberté provisoire bu koy juge bi di signer onze heures midi ñi bay waa motax nak nag dama ne je le répète encore une fois au magistrat si nous pensons que les gens les sénégalais ne sont pas conscients ou ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire C'est qu'ils acceptent les critiques des sénégalais qu'il y a une justice à double vitesse parce que mënoo tëj nit ki arrêter nit ki dans des arrêter dans des circonstances qui laisse à désirer cette personne ne demande une liberté provisoire, tu prends tes aises. Moi, que Sénégal si nous di mettre les ressentis personnels avant le professionnalisme Moi, on risque de sacrifier beaucoup de personnes au Sénégal dugg Kasso, moo gën a je sais pas si comprendre yewu Sénégal a gaaw yewu dé mais du duñu ay malaka il faut qu'ils reviennent à la raison et qu'ils comprennent que ce Sénégal-là d'aujourd'hui il y aura un Sénégal de demain voilà may leen nuyu di massaw déjà euh, madame Nia xalé yi yaay ji et toute sa famille tous ses proches euh, di que la raison revienne on a besoin de la de raison dans ce pays on a besoin de calme dans ce pays Nous avons je crois que l'homme ce que jàmm quoi voilà et qu'on arrête cette chasse aux sorcières parce que nous ne sommes pas des sorciers ils ont leur responsabilité ailleurs nous avons nos responsabilités chez nous waaw nañ ñu jox cër boobu voilà. c'est moi qui vous remercie.